waaw ñun euh, ay militant APR lañu d'abord euh, am candidat bo xamné dañ ko choisir pour ci jonganté bi nga xamné dafa wara tambali tel nañ ci prononcé wu bi ci kenn prononcé wul euh, depuis le 13 octobre ni ñun horizon 2020 plateforme la Macky Sall lañu sam pour son candidat pour un second mandat loolu it ñi koy confirmer que Mbacké ma fàttali département Mbacké maa nekkoon coordonnateur bi ma fi sos parti bi li fi ne maa fi samp maa fi yor majorité ci mbooloo mi mais kenn nekkatu fi coordonnateur depuis ma jóge fi caaya ju amul geño la moo tax bi bari caaya la ju amul geño kenn jiituwul kenn toppul ginnaaw ndax ñi fi nekk kenn nanguwul ku la jiite wala ku topp sa ginnaaw moo tax ginnaaw bi ma yóbboo suma vote dakaar ma am coona ndax jàpp naa ne bu ma ci dugalul sama loxo ñi fi ne mënuñoo gañeel Macky Sall loolu laa gëm ñi fi ne di nax président Macky Sall di def ay nekk ay dealer ñenn ñi ay opérateur économique yu bëgg ay marché lañu bu ñu demee bu Macky Sall génnee ñu sanctionné ko ndax ñenn ñi woteelu ñu Macky Sall sax ci législative yi pour di ko wan ne amoo fi ay nit pour ñu jox leen ay marché ak xaalis te marché yi ñuy laaj mënuñu ci dara am na ci ñuñ ci joxoon ne marché nangu nañ ko leneen li am na ci ndaw soo xam ne it toujours mi ngi nax parti bi yàq na parti bi te bokku fi woon ndax moom bu doon mooma Macky Sall du falu ndax da ko doon xeex bi mu daanoo da ko doon xeex mos koo voté ba nax leen ñu jox ko xaalis bu dul jeex muy jaxase nit ñi kon loolu moo xew fii moo tax nag man su ma njaboot ma dajale yaat leen andi fi alal jox leen ko ndax démb ak tey li ma fi ñàkk mat na fukki million démb ak tey ndax jigéen ñu mag ñi jox naa leen ñeenti xale yu góor yi euh, ñaari million xale yu jigéen yi un million jël naa ay kaar jël naa ay sono samay xarit yu jóge Dakar sax jëlal naa leen ba ñu ñëw muy délégation pour ñu xam meeting d'ouverture bi meetingu coalition bi la te dama cee bokk moo tax sama mbooloo mépp dinañ dem da ngeen leen gis euh, danañ teel a génn danañ teertu président danañ approuver candidature am leneen li nga xam ne nag mi ngi sunu biir xam ne ci sunu biir daanu ko régler après ndax am na loo xam ne après lañ koy régler ndax du ma toog ni la ñun ñëpp danoo juboo ndax Touba li Beaucoup président cautionné du gagner élection yi Touba loolu mo wor ndax ñi fi né di dem ci mom di ko laaj xaalis di ko def seeni poche xamné ne dañoo man législative def na fi plus de 100 millions ñu yak élection yi te ñi ko yak bëgg Macky Sall jox leen xaalis tax élection bi biñ ko wajé ak légui yaakaar naa ne demaguma foofu mais ci processus bi li ma ci ñak légui mu mat 30 millions té ak seeguñ ci campagne bi kon loolu maa ngi ci alerte président ak directoire campagne am xamal ko ni ñii ñëw ci moom mbaa ñuy ñëw ci Farba Ngom te li yàqu nag ci parti bi lépp Farba Ngom Farba Ngom moo nekk ca Ndakaaru di buur di bumi di yàq xamul li xew ci réew mi te lu ko neex def loolu nag lu président war a la bu dee yëgul loolu maa ngi ko koy yëgal ne Farba Ngom mooy yàqkat bi gën a rëy ci parti bi te bu dégloo xalaatam ah li xew dana fekk loola paase na ubbi ay bëtam xool ndax camp dara paaseegul am na chance mën a récupérer ñi ko mën a defal dara ànd ak ñoom pour gagner élection yi waaye élection yi am nay problème ci préparation bi te nii ñu bëgg a doxe buñ ko doxee mën naa am problème loolu moom maa ngi alertu te it lii wax naa ko xalif général des mourides ci suba ndax falaa jullee kon loolu danaa leen ko yégal foofu laay yem du ma ko weesu maa ngi alerte président daal mu xam ne ay gor yi ànd ak moom démb ba yóbbu ko ci pouvoir bi bu sukkandikoo ci seeni wagg fonk leen faratal leen dana gagné premier tour waaye nag bu ko nit ñi def lool leneen ba mu def ko lu mu gis ëllëg bu mu ni kat xawma ko woon la ab Abdou Diouf defoon ak Ablaye Wade ay élection lañu def ñi xiif ñëpp ñi ngi ŋaŋ te ñooñu xiif mënaluñ ko dara ku xiif nga ni Moustapha Cissé Lo mi am ay cent millions di ko def ci nit ñi mënul dara Touba man mi xiif jox ma xaalis ma dem wutal lay nit ku xiif de boo ko joxee <laughs> sab xaalis bu duggee ak moom ca roq ba danaan mu daanoog bàyyi laa yemale na Macky Sall xippi bëtam te xool te xam ne ñi koy nax ñi ko wër dañ koy nax de waxuñu ko dëgg kenn waxu ko dëgg ñi ko wër ñëpp ay naa naafeq lañu ñu wax dëgg tey duñu wax dëgg ëllëg loolu laa xam jàppoon ne léegi Dakar na nekk te di fa voté di fa mobiliser kon kon mobilisation mi ngi des ba léegi Touba. Touba maa ko moom politique Touba maay chef bi maay général bi maa ko moom ndax li ma fi am ci nit benn politicien ci benn obédience bu ko fi am amul tey de ci Touba buñ ma fi doon tëkkale kenn lañ ma fi mën a tëkkaleel muy ma dikkee ndax am na fii mbooloo.